ñeenti wasaf yooyu moom la bàyyi ubbee xutbatu ramadan ñi nga xam ne ajuma ji di ñëw incha allah moom la ñuy jàng fi ci Madina te ñeent yooyu yëpp benn bu ci nekk rek jar na oo weer yi yàlla booleel la ñeenti ngëneel yëpp nag ci benn weer wi kon buñ def looy sant ko ñaan ko mu defal ñu tawfeex ñu oo ko ci ni ko gënal moom yàlla ak nam gërëmee tam gërëm ñu gërëm suñ koor lépp lu ci nit defu tam ci lu baax mu nangul la ko eena eh, bu ci nit am itam ku def ko ci ñu mën loolu la ba nga mën ko def yàlla mën na loolu yàlla ñu ko defal ñu ngi ñaanal Sénégal ñu ñaanal ñi ko jiite ñu ñaanal réewu Afrique yëpp ñu ñaanal alamul islam yi lépp ku julli mën a rek ñu ngi ñaan yàlla yàlla bindale ñëpp ko koor gu barke ci mboolem jullit di koor gu itam fii ci Medina xaasatan ci senegal yëpp yàlla mën na loolu yàlla def nañ yàlla wattu te nangul ñu defal ñu jàmm ci suñu réew defal ñu ko itam ci suñu dëkk bi muy Medina safaar yeeg yëpp yàlla nañu ko yàlla teggil wala sax yàlla na ko yàlla delloo ci ñi nga xam ne ñoom la jógee rek bu ko defee ñi am jàmm waaw mm. def kati safaan yi moom bu safaan yi delloo ci seen kaw ak yéen a kati safaan yi ñëppay mujj am jàmm moo tax ñi ew na safaan ak ñi ko bëgg ne la delloo safaan yooyu ci ñoom ndax yonent bi ñaan na ñaan gu gën a rëy lii nee na al fitnatu naa'imatun na fitna mu ngi nelaw yàlla rëbb na képp koo xam ne yaa ngi koy jéem képp kuy jéem a bon nag loo xam ne amut mooy eekati fitna nga yàlla rëbb na la rëbb yàlla gu war naa tax nit ñi moytu bu baax a baax war naa tax itam nit ñi dund ci jàmm may jàmm koo taseet ay na ko jàmm su ko defee nekk bi dana yomb dëkk bi dana yomb yàlla ñu yàlla dimbale ci loolu yàlla ñu yàlla wattu ci suñ diine wala ñu wattu ñun ñëpp ci lislaam wattuñ ci gëm yàlla ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke Mawlana Cheikh Tijaani radiyallahu anhu ci barke Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu allahumma salli ala sayyidina tàggatoo rek ci biir koor gi gis ne yaa ngi jàngale ay hadis ndax ren séntuwaat ko pour tàmbali ko ak li nga xam ne waxtu naafil yi ak li nga xam ne mooy wa wi jàpp ak wu ñu doon moom lu ñu doon def ci lu baax rek ñu ngi am yaakaar ne dafay yokk waaye duñ ci wàññi dara xaalis bi ñu doon jàngale danañ ko door suba naafile gi itam danañ ko door tey tey mooy bis bu njëkk bi mm-hmm. Euh, ñu ngi joxe vingt trois ci lañuy ñuy julligee teg ci naafila bi bu bis bu njëkk bi rombee bis yi ci tegu ci biir koor gi vingt trois ci la ñuy taxawal gee ji teg ci naafila bi toog bi itam timis timis léegi dix-neuf heures vingt dix-neuf heures mooy timis gi fajar gi cinq heures ah